dem xool eh, jigéen ñi daal di dellu si léegi nii. merci beaucoup waa royalty. merci beaucoup ayca à la prochaine. jaajëfati ayca mu ngi noonu donc eh, am na solo euh, lool lool lool groupe jigéen ñi. góor ñi demee kay jigéen ñi mën a ñëw man bëgg naa lii te yéen laa àndal maa ngi leen di nuyu di bàyyi ngeen nuyu téléspectateurs yi. waaw onze bilaay mu ne seytaani rajim bisimilah rahmaani rahim yi ginnaaw bu ma euh, sante yàlla julli ci yonente bu tedd bi sallallahu alayhi wa di sant samay ñaari waajur di sant Serigne Touba Cheikh waaw di nuyu waa diaspora bi ak waa Sénégal yëpp man la Ndeye Cissé percussionniste orchestre jigéen ñi. en tout ñu ngi leen di bëgg a miin ñu ngi leen di bëgg a miin ci euh, réew mi ak ci kaw scène bi euh, donc euh, vraiment ngeen indil ñu beneen son bu bees. vidéo da nga koy jox mu nuyoo salaamaaleykum. maaleykum salaam Aba. yaa ngi am jàmmaat. ça va maa ngi sant bu baax. Euh, maa ngi nuyu ñëpp comme ni ko sama mag yi defee Ndeye Cissé ginnaaw bu ñu santee suñu borom sant suñuy ñaari waajur donc ñu ngi nuyu waa Sénégal man la Réma Diom guitariste bu orchestre jigéen ñi chanteur. waaw dégg nga loolu Aba <laughs> percussion guitare. en man da ngeen ma épaté. chapeau ñaata ngeen cinq wala six. ay jigéen ñuy def loolu mosuma ko gis. ñun ñun ñun ñun six lañu. parce que Korka ngi ci biir. mooy suñu coaché. waaw waaw Korka. Korka Dieng. Korka dama ko fan. si waaw oh, gis nga ci. Korka wuyul abaa ngi noonu. du nit la macha allah. voix bi bi macha allah donc tey ngeen mm-hmm. indil ñu. Euh, fas wi ñuul fas wi ñuul c'est quoi. Euh, waa Abba fas bu ñuul nag benn euh, single bu orchestre jigéen ñi génnee. donc euh, di ci delloo njukkal suñu maam yi surtout ak euh, muy morceau boo xamante ne c'est 100 pour cent traditionnel donc euh, séeréer Euh, ñuy wax ci affaire ci ci kii nu koy waxatee euh, brassage culturel yi surtout suñu kalante yi diggante Tukulóor séeréer diggante Joola séeréer ainsi de suite. Mm-hmm. donc foofu ñu ngi dekkal aussi cosaan parce que on a tendance à oublier euh, suñu suñu passé te bu ñu nee traditionnel lépp lay lay lay ëmb donc loolay fas bu ñuul. fas bu ñuul donc ñu enregistré ko ci ban studio et puis clip bi ñu fan lan ko clip bi rafet loolu lépp ñu waxtaane ko dañoo naturel. waaw waaw delloo cosaan rek parce que lif bi maam yi bàyyi woon ba tey jugu fii mhm. te xam nga ñun ñu il faut bu ñu dellu see waat cosaan rek duñu réer mhm. boo euh, ñu ngi ko enregistré ci waaw maa la wax loolu <laughs> cib boo <laughs> oh, indee mooy barke Serafal maa la wax loolu yaay boo gisee yaay Fall ci kaw seen beneen affaire ngay gis <laughs> barke Serafal ñun dañuy soppeeku barke Serafal bañ laay walaay indi feem yi indi ay bagage cib loolu ca kaw la <laughs> waa ñu ngi def euh, clip bi ci euh, studio euh, Papis Ndiaye mhm. voilà chef la jàmm mais dafa am équipe bu mag bu nekk ci ginnaaw parce que boo xoolee présentation bi xool organisation bi mhm. tey ñu ngi ñu jox li nga xam ni yéen la seen biographie mhm. seen ay projet concert yi ba ci seen lépp mu ngi fi ñu organiser ñan ñoo nekk ci ginnaaw waa ñu nekk ci ginnaaw nag ñu bari nañ am na ay ñu weex am na ay nit ñu weex tamit. waaw loolu moom am na yow xam yow yow dafa mel ni da ngaa. organisation bii du ñun. maa la wax loolu. lii ci lii. préparé nii jox ñu ay livre ca kaw ñu war koo lire. Ah. non yow soxna si yow war ngaa war a xam ne rek yaa ngi ci biir yow. ak livre ni mu xewee livre. ay góor yi kese. <laughs> man gis man déjà jigéen ñi ñëw nañ de. mœurs ay jigéen la woon kese. waaw voilà donc bi ma gisee ñu ne groupe de musique 100 pour 100 femmes instrumentatrice ak chanteuse basée à Dakar je suis fière de vous chapeau. ah seen groupe non oh, bu leen def nii bu leen def nii. non bu ma leen marax leen. non <laughs> ma leen ci non yow yow yow boo ci duggee léppay ëpp yow. fi ngeen wér day débordé. ma leen marax leen. <laughs> yéen ñi la ngeen lii ko. soxna si bëggu leen góor Beyoncé la may fàttali orchestre Beyoncé. bëggu leen góor ci. non yéen bëggu leen góor. <laughs> en tout que man maa ngi ci biir groupe bi léegi. soxna si uh-huh. góor baax na jigéen baax na. waaw te uh, ñii góor ñi millier bi boo gisee ay góor kese si nekk. Uh-huh. donc ñun bu ñu ñëwee ak suñu groupe te lii dafa doon loo xam si lu bees tàq la fii uh-huh. parce que da nga daan gis jigéen ñi ñu téye seen micro góor ñi nekk seen ginnaaw jàppaleen boo ñun li ñuy def dañuy tëgg. en même temps di woyaale ah, léegi bu nga bu ko defee nag gars yi góor ñi nag ñoom ñoom suñu kilifa la ñu walaay mais danga ñuy ëppale rek jàppale lañu rek ñu xuus alors parce que lii quatre pays la am fii en Afrique muy Côte d'Ivoire Guinée ak euh, Sénégal ak euh, Afrique du Sud suma juumul quoi donc kon waa Sénégal orchestre jigéen yaa ngi nii ah nit ci ñëpp jàpp mu jëm ca kaw ca kanam ci lu baax. ak projet yi di xaar concert yi. di xaar album bi surtout waaw parce que album bi incha allah euh, sera le 19 incha allah place du souvenir donc euh, ñu leen ci invité yéen aussi di si invité invité au Sénégal Ndiaye yëpp ñu ñëw fekkee ko parce que dina doon concert bu mag. incha allah ku leen gis ci kaw seen ku leen mës a seetaan ci kaw seen euh, du bëgg rateeti yéen seen concert wala seen show. waaw parce que am nañ style am nañ. macha allah man en tout merci beaucoup merci beaucoup ko kenn fàtte si la ñuy def euh, kii yu euh, kii yu album bi euh, au place de souvenir lancement bi ak présentation bi ci place souvenir bon benn affaire laa bëgg souligner parce que des mix bi lu Ndour ma nga fa woon toog ak euh, madame Ndour alors que man nii ma mel nii tey c'est grâce à lui franchement moo ma njëkk a jox passeport moo ma njëkk a yóbbu tournée ñu ànd tournée dem nan Hollande dem Martinique dem Guadeloupe dem Funé barki Serigne Touba kon c'est un grand monsieur ah ah te si suñu feexte la Youssou ñoo ngi nii yow ci parrain yi nga bokk madame ci marraine yi nga bokk yu ak suñu président de la république madame Faye Sall jigéen ñaa ngi nii waaw di gërëm di sant suñu manager Samba Diaité Assoumane directeur maa la wax loolu cim dañu buuxante de léegi nag a ah, ah, ah, rek la léegi yéen vous êtes <laughs> la femme c'est la vie la femme c'est le monde dëgg la fii seen kër la heure bu ngeen doxantootee ba seen xel nekk ci dugg single bu génneeg album bu génne bu ci seen yoon nekk jaar leen rek ne abaa na ngeen def dañ fee jaaroon doxoon suy wax programme ngeen dem ñi may loolu neex na xanaa li na waaw loolu kay neex na. su ñu ko benn affaire yow it maag yow ba arena. Ah, dëgg la ñoo bokk benn hôtel. dëgg la waaw ci Suisse. dëgg la kon yow tamit borom baax na ku yow na toi t'es reconnaissant. yow soxna si kenn waxul kenn demul nga des. ah nuyu nañu ñëpp sama yaay ji jàmbaaloon nuyu naa am na beneen groupe boo xam ni mu ngi.